Zahra Iyane Thiam ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen fay. d'accord ñuy dalal tey euh, madame le ministre de la microfinance et de l'économie euh, sociale Zahra Iyane Thiam mi bokk ci task force bi nga xam ne euh, républicain yi moom lañ teg jamono ji ngir nag àddu ci lépp luy waxtaanu politique économie ak sociale madame le ministre lu waral tey ngeen teg bi lépp bi lépp entité ngir mën a àddu ci yooyu le questions. waaw maa nga lay gërëm di gërëm aussi ñi ñuy déglu ñëpp mm-hmm. di gërëm seen waa groupe réew mi bi yëpp mm-hmm. aussi di rafetlu invitation bi di rafetlu liggéey bi ngeen di def mm-hmm. bu ma ñëwee ci sa laaj bi dinaa ci sawar a tontu ndax comme ni ko waxee euh, tos taxawal nañ euh, ci lu yàggul dara kureel gu ñuy wax task force républicaine kuréel googu nag ay ndaw yoo xam ne ñoo bokk ci parti bi ay cadre ay responsable mm. yu bokk ci parti bi ñuy wax alliance pour la république ñoo daje séq waxtaan jàpp ne war nañu gën a dugalaat seen loxo ci taxawaay bi ñu am moo xam ci euh, nekk défense maanaam nekk taxaw ci kanamu président de la république ci lépp loo xam ne dafay ñëw war dal ci kawam surtout ci lu nekkul yoon wala lu teguwul fenn moo xam également taxawaay ci suñu wàllu parti bi ñuy wax APR mm-hmm. moo xam également taxaw ci li gouvernement bi di def jëf yi nga xam ne politique publique yi nga xam ne ñi ngi koy def jëmale ko ci askan bi mm-hmm. loolu aussi euh, boo euh, gisee ñun ñu décidé taxaw te ma ci profité di nuyu coordonnateur Birame Faye bi nga xam ne moom moo coordonné kuréel googu mm-hmm. dañu jàpp ne tey réew mi ak àdduna bi dafa toll foo xam ne ku doon def benn wala ñaar ci taxawaay war nga def fukk ndax mbas mi wan nañu lenn ci euh, vulnérabilité yi nga xam ne dund am na ko de manière générale du Sénégal rek ndax loolu àdduna bi yépp la laal mm. mais également bëri na loo xam ne état bi ñu ngi koy liggéey président Macky Sall yéene na ko askan wi gouvernement wam di ko doxal mm-hmm. te dangay ngay gis euh, ci wàllu politique politicienne ñu ñu gàkkal ko wala ñu tilimal ko te loolu du tegu fenn mm-hmm. loolu nag dañu jàpp ne président Macky Sall mi ngi def liggéey bu am solo boo xam ne tey dañu war a gën a taxaw gën ko xamal askan wi gën a expliquer aussi li ñuy def lan la ndax nag boo seetloo euh, askan wi la tabb war nga di ko rendre compte mm-hmm. war nga di ko wan liggéey bi ma lay defal fii laa ci toll nii la mel mu mën la ci jox xalaatam euh, donc loolu daal euh, ak euh, li nga xam ne jàpp nañ ne ñun dañ fi nekk instrument boo xam ne aussi bu ñu parti bi soxlaa ñu taxaw mm-hmm. bu ñu président soxlaa ñu taxaw ndax ñoom lépp lu ñuy soxla aussi day delluwaat ci lu lu jëm ci lu lu lu liggéeyal askan wi kon daal lii firndewul ne euh, lépp lu euh, régime bi di def fësul bu baax donc euh, firndelu ko fir déedéet mënu koo firndeel ndax xam nga régime bi li muy def li koy firndeel mooy saa su président de la république jàkkaarloo ak pour mm-hmm. di ko laajaat baat caq boo xam ne dina mën a yeggali li muy def mm-hmm. su boobaa askan bi day wax li mu xalaat ak li mu nekkee te seetlu nañ wax dëgg yàlla ne ci wàllu euh, élection yi weesu mhm. ci daanaka fukki nit yoo jël daanaka juróom benn yi dañu ne président Macky Sall li ngay liggéey doy nañu mm-hmm. dollil ñu mm-hmm. kon loolu tey bu amee day wane ne li président Macky Sall di liggéeyal askan wi askan wi gis na ko xam na ko mm-hmm. mais li ma wax sànq rek ma ne donte loolu am na tey gis nañ ne dañu war a yokk taxawaay yokk taxawaay boobu moo waral lu ñu waxal askan wi rek du doy lu ñu leen gën a mën a taxawal ci wan leen ne président Macky ci seeni soxla la nekk subaak ngoon guddeeg bëccëg du doy loolu nag mën nañ ko def ci fànn yu bari wax nga ko gouvernement bi am na pàcc bu ciy liggéey mm-hmm. Euh, yeneen kuréel am nañ pàcc buñ ciy liggéey mais ñun aussi dañu bokk ci parti politique kuréelu politique te ñëpp xam nañ ne bokk na ci euh, parti politique également di wasaare mm-hmm. euh, surtout boo nekkee parti au pouvoir li ngay liggéey ak li ngay def donc ñun tamit dañu fas yéene gën a bay suñu waar ci liggéey boobu nga xam ne dañ ko bokk ak yeneen camarade nag mm-hmm. du caagéen ne ñun ñi taxaw rek ñoo ñoo koy def camarades yu bëri ci parti bi te ma ciy jaar di leen sargal vraiment alliance pour la république parti de masse la boo xam ne kenn ku nekk ñi ñu xam ak ñi ñu xamul kenn ku ne ca fa nga ne yaa ngi bay sa waar boo xam ne lépp ngir jàppale suñu lider la président Macky Sall loolu aussi ñu ngi koy rafetlu di ko naw bu baax. Mm-hmm. te di wax na camarade yëpp continuer li tàmbali la boo xam ne dina gën yaatu dina fekk ñëpp fu ne ngir ñëpp gën a mën a jàpp ci liggéey bi nga xam ne ñoo ko bokk. et justement madame le ministre wax nga ko gën a euh, taxaw euh, donc fësal euh, tey jii mu mel ni dafa gën a yokk da ngeen mettre les bouchées doubles muy yéen ak gouvernement bi nga xam ne quatorze jours ba quatorze jours war naa mën a communiquer xanaa da ngeen di euh, yeesalaat wala sax gën a woon sénégalais yéenay kan wala dafa am li ngeen di waajal. déet li ñu wax rek mooy mooy li ma la wax sànq mhm. laaj bi xëy na tontu nañ ko ci sànq. Mhm. Euh, du lenn lu ñuy seet. li ñu wut te nga xam ne d'abord engagement la bu ñu jël ñun ñi bokk alliance pour la république mhm. mooy def li nga xam ne loolu lañ suñu président parti sant muy le président Macky Sall te lim ñu sant mooy taxawala leen askan bi mhm. lépp loo xam ne askan bi war na ko xam wala war na jëm ci moom wala war nañ ko ko defal nañu ci taxaw temm mhm. loolu responsabilité individuelle la ñun ñoo dinañ ko yóbbu ci ñu dajaloo ci ñu organiser ko ci ñu xool naka lañ koy defee. Mhm. loolu benn la mais ñaareel bi aussi euh, jàpp na li sos kenn parti politique. Mhm. mooy euh, aller à la rencontre des citoyens. vendre son programme loolu buñ ko defee en tant que responsable politique mhm. euh, loolu lu ñu war a def la parti yëpp ko war a def rawatina aussi ñun ñi nga xam ne yàlla dafa def ñu yor yeneen cër yeneen ndomba tànk mhm. ci réew mi am liggéey boo xam ne ñi ngi koy def ci secteur bi ñu dénk mhm. kon man ak sama naataangoo yi nga xam ne ak suñu camarade yëpp waa affaire yi nga xam ne ñoo bokk ci task force républicaine boobu dañu décider taxaw temm gën a gën a dugal suñu loxo mhm. ci lépp loo xam ne dina euh, defar suñu parti ci lépp loo xam ne dina gën a Euh, may gëdd gën a may cër suñu parti ci wàllu liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def. Mhm. moom ak euh, président parti bi muy le président Macky Sall. Mhm. madame la ministre tey suñu euh, koom-koom dafa sooxe gannaaw nag mbas mi nga xam ne gis nañ ko ci mim réew tey ñoo ngi wax ñaareelu vague yan crainte nga am par rapport ak deuxième vague boobu ñuy laam-laame jamono ji waaw koom-koom bi nga xam ne soo sooxeen dafa jóge ci mbas mi ñuy wax Covid 19. Mm. ci suñu réew ak ci àdduna bi yépp ndax mbas mi bi mu ñëwee koomu àdduna yëpp la laal. Mm-hmm. loolu benn seetlu la mais beneen jàngat bu am soño bi ñu war a def aussi mooy euh, mbas mi wan nañu ne ñun suñu pays c'est un pays pays résilient fexe nañu résister ci li nga xam ne moo ñëw. Mm-hmm. léegi nag euh, première vague bi bi mu yegsee mm-hmm. donte taxawaay biñ ci taxaw mucc na ay ba yenn ci ay kuréel yi nekk ci àdduna bi nangul ñu ne ci dëkk réew yi euh, jàmmaarloo covid bi yëpp mm-hmm. ni mu muccee ayib Sénégal mooy ñaareelu réew benn réew moo ñu jiitu muy Nouvelle-Zélande loolu daf ñu war a wan ne li ñu nekk ak li ñuy def lu baax la ndax mm-hmm. président bi muy ñëw dafa indi ay priorité ne agriculture bi dafa koy moderniser ndax koomu réew mi dina bokk ci fi muy gën a mën a jóge mhm. ci secteur agricole boobu nga xam ne su ñu ñoŋalee intrant yi ñoŋal équipement bi ñoŋal accompagnement bi dina mën a bokk ci li defar koom bu baax a baax mais am na yeneen secteur secteur yu mel ni pêche yu mel ni élevage yu mel ni infrastructure mhm. loolu benn la donc bi mbas mi ñëwee mu ne damay def programme de résilience dimbale euh, maanaam yenn couche vulnérable yi moo mm-hmm. xam population yi jaarale ko ci dund bi moo xam fay ndox bi la moo xam fay courant bi mais damay sécuriser emploi moo tax première ordonnance bi mu jëloon d'ailleurs pour sécuriser wàllu chômage bi la woon wàllu emploi bi bu ñu dàq kenn dañu leen def chômage technique wala dara mm. fay lu néewul soixante dix pour cent ci salaire bi ba pare en contrepartie mu teggil entreprise yi taxi yi donc jox leen facilité ñu def ay report d'échéance ci mm-hmm. secteur bi ma ne donc yooyu yëpp yu yu ñu indi la woon pour résilience bi mais leneen li ñu mën a xool mooy boo seetloo ci yeneen réew yuy dugg ci deuxième vague bi aussi euh, am na jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy gis. Mm-hmm. moo tax jàpp naa ne ñun fii Sénégal comme loolu yeggseegul te ñu ngi koy craindre. Mm-hmm. dañu war a gën a taxaw ci mesure barrière yi. dëgg la ñu ngi laam-laamee vaccin. Mm-hmm. mais xëy na mën nañu bañ a ñun yegg foofu bu fekkee ne fi ñu demoon ba yëf yi di waaj jeex ci respecter mesure barrière takk masque def sa gel mhm. mbaa ngay raxas souvent euh, yooyu yëpp def distance physique bi yooyu yëpp nañ ci gën a taxaw mhm. suñ ko booleeg programme euh, PAP 2A bi mooy le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré bi jóge ci deuxième PAP bu plan Sénégal émergent bi mhm. euh, jàpp naa ne ak défi yi ñu am moo xam ci wàllu sécurité la moo xam ci wàllu souveraineté pharmaceutique industrielle alimentaire ak yooyu mhm. euh, yooyu yëpp euh, buñ ko boolee amaana dinañu gën a résister ci lii mbas mi aussi jóge fii ñu ñu ñaan yàlla ñu mucc ci parce que deuxième vague en tout cas ci réew yi nga xam ne am nañ fa gis nañ ne dina dina gën a metti dina gën a difficile. Mhm. madame la ministre sa projet de budget bu sa département voté nañ ko bu yàggul euh, mu mel ni dafa am yokkute tey ji yan mooy orientation euh, département bi nga yor. waaw comme ni nga ko waxee bu yàggul la ñu jóge assemblée effectivement député yokk budget ministère bi voteel ñu suñu budget bi ñu proposé woon ñu nemmeeku ci ne am na yokkute bu bu bu léger bu ci am mm. loolu d'abord ñu ngi koy rafetlu mais aussi day rek ne secteur économie sociale et solidaire ak microfinance dafa nekk secteur bu am solo d'ailleurs initiative nationale la Euh, njiitu réew mi dafa bëgg képp ku nekk ci réew mi nga mën a bokk ci liy tabax koomu réew mi ak noo ko mënee ak foo toll loolu nag euh, gis nañu mbas mi déjà bi mu ñëwee euh, naka la secteur boobu vulnérable ba tax na tey lépp lu jëm ci gën leen accompagner gën leen dëgëral hmm. dañ ko war a moo tax buñ koy def aussi jàpp nañ ne dafa war a tegu ci fu leer te bi ciy jiitu mooy yoon mën a wax ñi nga xam ne jàpp nañ ne ay acteurs de l'économie sociale et solidaire la mm. seen taxawaay nii la war a mel moo tax deux mille vingt et un bi incha bëgg nañ ci voter loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire. Mm-hmm. bi nga xam ne dina indi avantage yu bari pour secteur bi mais surtout ñu saluer renforcement mécanisme de financement yi parce que xam nañ ne aussi secteur microfinance bi dafay dafa dugal bu baax loxoom. Mm-hmm. ci liy yokk koom bi à travers le système financier décentralisé mais tey bu ñu indee fonds bu mel ni fonds de la microfinance nga xam ne dina gën a mën a dimbale euh, institution de microfinance yi pour ñu gën a mën a joxe crédit xëy na ci lu gën a néew nu mu gën a baaxee mm-hmm. donc gën a defaraat gouvernance institutionnelle bi de manière générale loolu dina nekk lu am solo ak yeneen programme d'encadrement de formation pour que économie sociale et solidaire bi aussi gën a dëppoog li ñu gën a li ñu mën a may ñu gën a jëm ci inclusion économique et financière ndax boo xoolee finalité microfinance ak euh, économie sociale et solidaire yëpp mooy arrivé à atteindre l'inclusion économique et financière kon nekk na ay défis yu am solo yoo xam ne euh, fas yéene nañ ci taxaw bu baax a baax comme mi ñu ko njiitu réew mi santé du reste pour l'année deux mille vingt et mhm. justement ci mbas mi nan la sa département wala ndax dafa am euh, ni nga xam ne fas yéene nga ko taxawee ngir nga jàppale euh, candidat yooyu nga xam ne dañuy dem ci mbëkk mi. waa xam nga côté boobu wàll boobu boo seetloo suñu doom yeeg suñu rakk yi suñu jarbaat yi nga xam ne ñooy dem ci mbëkk mi mm. ñu considéré leen ne comme ay ndaw li ñu gën a nemmeeku mooy ñoom euh, au delà de surtout formation bi nga xam ne dafa nekk priorité pour état bi mm-hmm. ndax aussi nit ki euh, forme war nga am formation maanaam du man dama jàng rek moo war a tax nga liggéey mhm. boo jàngul aussi am na loo mën donc métier boobu nga mën war nañ la créer ak sa profil lu mu mën ti doon jumtuwaay yoo xam ne dina la permettre nga mën a bokk ci liy liggéey bokk ci liy tabax koom sa réew ci anam en tout cas bu bu gën a euh, baax bu bu gën a mën a dëppoog xëy na environnement euh, épanouissement individuel mm-hmm. loolu formation bi ministre sama naataango yi ko yore ci seeni secteur ñu ngi ciy def liggéey bu am solo mm-hmm. kon ñun war nañu gën a mën a taxaw ci encadrement ak financement ndax euh, jigéen ñi chance bi ñu am mooy ñoom dañu organiser wu foo même bu dee dañu nekk ci mbootaay nga mm-hmm. xam ne loolu kenn formalisé wu ko sax da gis ne am nañu une forme d'organisation solidaire boo xam ne su kenn kenn mënul bu ñu dajaloo mën nañu dem am yu ñuy jëli ji indi donc loolu ñun jàpp nañ ne ci ni ñuy faral di encadrer jigéen ñooñu am seeni mbootaay mm-hmm. war nañu aussi def mécanisme yoo xam ne dinañu gën a mën a accompagner ndaw yi ci encadrement euh, ak ci organisation ba nga xam ne ñoom tamit euh, mécanisme yi nguur gi teg dinañ ci gën a mën a jote euh, loolu donc jàpp naa ne muy ministère de l'artisanat muy ministère de l'emploi wala de la jeunesse bu ñu gënee boole suñu action gën ci am une action concertée Euh, kenn ku nekk indi ci sa pàcc war na mën a nekk déjà une première réponse mhm. ndax vraiment migration bi problème bu bu metti la mhm. bu fi nekk la te duñu jóg ci liggéey loo xam ne euh, dina mën a indi ay réponse yu appropriées loolu lañu président Macky Sall sant te aussi si deux mille vingt et un bi dinañ ci def ay xalaat yoo xam ne jàpp nañ ne dina dina mën a aussi participer ci luy dindi lu mel noonu ci suñu ndaw réew yi. madame le ministre Zahra Iyane Thiam merci beaucoup. jërëjëf maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen euh, remercier ci mm-hmm. invitation bi. merci beaucoup.